donc euh, gis nga dafa am ñaari vision yu am dafa am lu ñu tuddee état libéral ak état interventionniste tantôt Sénégal dañuy am benn vision libéral mooy libéro yi ñoom lu ñuy wax mooy marché bi da nga koy bàyyi mu dem ak boppam bis dina jot mu réguler boppam mooy cest à ñu bàyyi ñoom àll ñi ñun def lala neex bis dina jot ñu dem ba gis ni jaadootul ñu rendre lépp mu tegwaat ci normal bi ñoom libéraux noonu la ñuy xalaatee moom ñoo xamante ne il faut état intervenir. gis nga situation bi nag état du Sénégal interventionniste la si doon mooy dafa jàpp ni bu ñu bàyyee ñoom say njaay ñi ak marché bi duñ ko mës a réguler. Mm. mooy dañuy gën a yokk affaire bi di gën a dóor nit ñi rek di gën a dóor nit ñi rek mu ne su boobaa pour mu mën a réguler affaire bi foog moom mu injecter beaucoup plus d'oignons sur le marché local. mooy cest di mu fexe ba importation yi ñëw bu ko defee offre bi ak demande bi dañu xaw a tolloo bu ñu tolloowee rek prix bi day stabiliser wu. donc loolu mooy vision bi nga xam def nañ ko ci mais li gën ci dëkk bu mënti nekk ci àdduna mooy nga moomal sa bopp di jaayal sa bopp di dundal sa askan loolu moo permettre ji Russie ba embargo yi ñëwee ceinture ko te mën na toog deux ans voire même trois ans di dundal boppam parce que politique bu état mën na teg mooy nan laa mën a def ba dundal sama askan ci man li may bay mais nag loolu pour mën a am nag mooy il faudra ñu def une ce qu'on appelle changement structurel suñu économie ni muy doxee nii ñu jéem a xool nu ñu ko changé xam nga dañoo wax ni sàcc actuellement Sénégal suñu économie secteur tertiaire bi moo koy doxal mooy les banque ak les services mais loolu baaxul si ñun parce que loolu ñun moomuñu ko ñun suñu économie euh, agriculture familiale moo ko war a doxal mooy koo xamante ni ay bay dundee la mooy sénégalais bi mooy bay ñu jox ko industrie ñu transformer ko mu desaat biir Sénégal lañ ciy gagné des biir Sénégal ñu mën a am une croissance inclusive une croissance endogène boo xam ne supportée par les Sénégalais. Mhm. mais loolu pour mën am foog mu am leadership politique pour leadership politique boobu am foog nga bàyyi tàllal sa loxo di ñaan ñaan googu moo ñu indee parfois nga gis ni. même bu ñu bëggee def ni oignon bi nañ ko yamale bi Sénégal nga gis ni force étrangère dina loolu mënta nekk parce que arrangé wu sinon boo leen ko deful li ma leen jox comme ndimbal man dama koy arrêté di ngeen am problème mu salaire ma fexe ba yéen doo mën a fay seen salaire parce que man jox loo leen fayee seen salaire di ngeen am problème mu creuset budgétaire ma fexe ba creuset bi gën a xóot parce que man maa jox lu tax ngeen di def loolu donc li mën a nekk mooy sama réew yi nga xamante ne am na ay producteurs ñun la ñuy dundee doy nañu sëkk ba excédent bi foog ñu indi ko Sénégal. Mhm. kon nag foog nga ibbil ma sa frontière man la nga soxla ci wàllu det ma la koy jox. loo soxla ci wàllu pont ma fexe ba financer la si loolu yow aussi nga fexe ba samay agriculteur fexe ba di mën a ñëw sa réew di fa jaay ñoom seen ay production loolu nag pour mu mën a dakk il faut daal am benn moom la foog nga am benn leadership politique mais est-ce que dina yomb mën na nekk loolu lépp en fait mën na nekk parce que Sénégal amuñu problème ressource ñun problème volonté politique ak leadership politique la ñu am producteurs yi non foofu ñun man xam fan laay gis est-ce que loolu aussi mooy euh, Sénégal gi nga daaw li muy wax problème mu kii bi euh, Touba bi. Mm. parce que événement am na oignon bi assumé wuñ ko biir Touba ak événement yi fi jotoon na xew yi yëpp ña fa nekk as néew yor oignon bi grimper le prix parce que offre et la demande rek mooy réguler le marché mooy su fekkee ni la laaj mu ëpp junni yoon lañ la mën a jox day agir directement sur le prix. te loolu ñoom yow yàlla leen si may nag ñoom ci loolu mooy bu ñu gisee ni tey jii parce ñi ku nekk domaine bi nga nekk dafa am lu ñu tuddee ay météo ñoom gis nañu d'ici quelques mois oignon bii de dina xaw a parce que information la ñuy jot. ils font des calculs en fait. oui duñ ko jot. gis nañu Maroc am na ay restrictions yu mu teg gis nañu Hollande mënu indi oignon bi période bii nii ñoom lu ñu mën a gis mooy ah naa jéem a kal tuuti su ma kalee ba nit ñi gën a sonn gën a kii demande bi day dem ba demande bi forte samay soog a teg su la taable hmm. su boobaa day am benn ajustement boo xam ne dina ko def sur le prix état nag ci rôle am la nekk actuellement. Mhm. mooy fexe ba loolu am mu ne ko naa fexe ba remplir sa gap la su ma remplir gap bi la production sera la euh, l'offre sera là la demande sera là équilibre bu xasee ba am rek stabilisation des prix des.